رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا أعوذ بالله الشميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم والحمد لله على نعمة الإسلام الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على سيد الوجود مولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اختفى أثرهم إلى يوم الدين Eh, mbokk yi ñu ngi dellu siwaat tabarakallahu fii ci weer wi TV eh, ànd ak suñu mbokk ci technicien bi muy Seydina Omar tabarakallahu borom kër gi ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yëkkati kàddu gi ba àdduna dégg ko waaye lii maxsab bi yàlla na yàlla ak yonent bi alayhi salaatu salaam te yàlla yokk ko fa tabaarakallaahu ba mu yaatu lool bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi ñëwoon nañu ak yéen fa tabaarakallaahu ubbi benn bunt bu yaakaaru muy wàllu tarbiya waaye tabaarakallaahu fii ñu toll ni jamono bi muqtadal xaal bi mooy li nu nekk di yëngu te mooy sunna maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne am yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla royloo bu kenn ku dul ibrahim kama jaa fi alquran wa tabi millata abika ibrahima hanifa tey nag fa tabarakallahu mu nekk sunna boo xam ne euh, war nañu ko xam ndax jullit warul def dara lu dul loola daf ko teg ci xam-xam ñu ne kon lan moy tabaski al adhiyatu ismun lima wadaxa fi ayaami al iid al adha tey mooy rek rendi ci jamonoy fani euh, tabaski fanu tabaski nag moom mooy fukkeelu fan fa ci weer yi ñu tuddee zil xijja muy weeru aj wa huwa sunnatul muakkada moom sunna la boo xamee ne bii sunna bu ñu dëgëral la fi xaqil qadir inda al jamhuril fuqaha ci koo xam ne attan na mooy mën na ko am na ko kooku mooy al qadir léeg-léeg nit ñàkk ko mën tabaarakallaahu lu ne mu dugg ca te loola nag chariatul islam tegu ko lu ni mel manam dang koy man financièrement nga def ko soko munu be fa tabarakallah loola da fay wàcc ndax xat waxat sharaat fi sunna as-saniyah min al hijriya ñu ko shari'a manam ci atum ñaarel ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jot bobu sunna bi ko dundal wax nañ ne waqad dakha an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi kabshayni amlahayni aqranayni fasabahahuma bi yadihi sharifa wa kabara kama jaa fi xadisil anas yonent bi sallallahu alayhi wa moom ci madinatul munawwar dañu wax ne daxa annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaski na rey ñaari xar tabshay ni am laxay ni ñaar yu duuf waaye aqranay ni ñu am ay béjjën kon gis nga sëñ amar dañ ci dégg ne béjjén yi am na solo bëgg nañ xam mu am béjjén ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu ko defe woon waaye mu leen rendi ko ci loxom yu tedd ya moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw tudd ca yàlla comme ni ñuy rendee te moo jublu penku jiital sa yéene wax bismillahi allahu akbar rend tabarakallahu loolu nañu bàyyi wa bàyyi xel loolu bu baax suñu mbokki ndóoyeen yi fa tabaarakallaa yàkkamte nañoo rey xar mi ba léeg-léeg bu ñu dugal sax baat yooyu mm-hmm. waaye loola bu amulee daanaka bi moo xam ne léegi nag wa xukmuhu chariyatiha euh, xuk mm-hmm. atte chariam mm-hmm. ak li nga xam ne moo ci nekk ci xikma te mooy moom daal adhiya la te mooy hadiya bu nit di génne شكرا لله تبارك وتعالى غير سانت سن بوروم سبحان وتعالى دا كو خام تي سانو تابسكي خام ن تي بو فيكون تاني مانام مام ابراهيم عليه الصلاه والسلام دومم جوجو دي اسماعيل والاسحاق تي موم لا ني رندي وون كون ماردي تالي jamono buñ ci yek sé rek dom adama lañuy sacrifier mo doon sacrifice bo xamne day delu ci yalla waye baye bi koy def daf koy jégeñal لولو نك تي تبارك الله يالا ديمبلي نانيو ناخ بي لولو امي وفضيناه بذبح عظيم يالا غيسغا نيو اسافافي بكبس ها بذبح كبس عظيم من بذبح عظيم نون القران دي واخا nga xamne yalla da ko wote kuy mu maga maga mak kuy momu tay mom momu njotu ba ken bu ci reñu wa ala awrafi ni'amihi akitam aw fari ni am yi maanaam xéwalu gi yàlla bu yaatu gi itam mm. tabaarakallaa ñu koy feeñal wa jamili ihsaani yi maanaam ak rafetalu li gën a rafet ci rafetal mm. wa tabaarakallaa ci jaamu yàlla bu nit di def ngir jege borom mm. am na nag ay sàtt yu ko wéral sàtt yu ko wéral mooy li ma la waxoon léegi ci rend gi mooy an niyatu li an al udhiya qurbatun ila allahi maanaam jaamu yàlla sacrifice bu nit bi def na pour mu jegeñal ko boroom bi subhanahu wa taala kon ki koy def moom na xam ne lii muy def taqar boobu la ci jublu mooy dafa bëgg jege boroomam subhanahu wa taala moo mu def sacrifice boobu loolu mooy sart euh, bu njëkk bi mu ne saani ñaareel bi an yakuna min kabs maanaam tey bu fekkee si suñu réew mii la xar moo ci jiitu xar bu góor euh, kuy ma tàpp ma bu jigéen ba ginnaaw ga béy ginnaaw ga nag ginnaaw ga gëléem waaw léegi nag jëlee nañ ci fuqahaawul arbaa ñu wax ne fala yujzi xayra hadihi al asnaf al arbaa wax nañ ne lu dul ñeent yi maanaam du doy nit tabaskee waaw am di nga fekk nag maanaam ci wuute fuqahaaw yi leneen waaye ñeent ñi nga xam ne ñoo gën a siiw ci ñun fa tabarakallahu malik ca la bokk ñoom loolu la ñu wax ne yooyu rek mooy yi nga xam ne fa tabarakallahu moom la ñuy tabaskee bu ko defee kon fuqahaul arbaa loolu nañ wax mu ne assaalisu ñetteel bi an yakuna al addahiya saliman min al ayib eh, gàtt bi ngay tabaske war na mucc ci ayib yi mooy gàtt bi bu mu nekk gàtt bu feebar bu mu nekk gàtt buy soox bu mu nekk gàtt boo xam ne cër ya dañoo wàññeeku Umar nag foofu léeg-léeg tabaarakallaahu nit ñi di fi juum lool maanaam bu dee ab nopp dañu lay wax ne na fekk ñetteelu xaaju nopp bi laa nañ ca mooy perte na xaaj bu njëkk bi xaaju ñaareel ba dugg ci xaaju ñetteel bi boo boobaa loola nag ayib la buy tee tabaski bu dee génn bi tam noonu waaye bu dee jën bi tamit noonu kon gis nga kon fa muy dagg xam nga dana sori waaw ñetteelu xaaj bi fokk mu jël bu ko defee bu boobaa dootul mat tabaski bu làppee lool it du mat tabaski bu feebaree du mat tabaski bu ko defee kon nga tànn xar moo xamee ne nii wóor na ne mucc na ci ayib yooyu waaye xar la moo xamee ne nii amewul benn feebar loolu itam tabarakallahu mooy mat tabaski waaw al arja buy soox arjaul bayin soox bu biir nag lañ wax les les xar bi soox te boo ko seetlul loolu doo ko xàmmee waa chariatul islam mais ne nga tabaskee ndax ci hadis ba la ci ñëw mooy al arja ul bayin mooy sox bu biir nit ki noonu tabaarakallaahu moom it gémmeñ boo am xet dafa bokk ci amrad yi nga xam ne dafay teye tabaski wér mooy fekk yow da nga koy daan nga xet gi di la yegg si ci yow waaye du da ngay ñëw dëpp sa gémmeñ wala dëpp sa bakkan ci gémmeñ gi dee def xet googu taxul ñuy wax nga defee boo muccee ci yooyu nag chariatul islam wax na ne mën nañ ko bu arab yi an tanhara al adahiya fi yowmin iid ay fi yowmayni allazi mooy maanaam tabaski du nga rendi ko ci beneen fan bu dul yowmul iidi te mooy bisu tabaski ci boppam mooy ginnaaw taxawaayu arafa wa ilaa mu nekk ci ñaareelu fan yi ko méng mm-hmm. boo demee nag daa fekk fële ci maanaam imam Shafi'i moom mu wax ne maanaam ñeenteelu fan ba shariatul islam wax na ne daañ tere fi mu ko wér nag mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kullu ayamin tashriq zabax maanaam bépp fan ci fan yi tashric yi nee na daañ ci rendi loola abu imam Shafi'i radiallahu taala anhu wax na ko waaw juróomeel bi nag mooy an yakunu an nahar awi zabb baada salaatil iidi bi ijmaa'il muslimin maanaam ñu dëppoo ci ne xar yi itam deesu ko rey mukk lu dul fa tabaarakallaahu fekk julli nañ ba noppi bu ñu jullee ba noppi ba imaam rendi ba noppi bu boobaa la kuy rendi doog a rendi kenn ku ci nekk imaam ba la jiite jamono bu rendee ba noppi nag doog na wér nag ci yow tabarakallahu nga rendi waaye euh, maal asaf bokk yi jullit ni tey dañu daw ma diine ji ci façon boo xam ne maanaam di nga gis ku bàyyi farata sax sonne sunna di nga gis ku bàyyi farata nekk ci loo xam ne kenn xamut mustahab la bu mu doon mm-hmm. waaw Omar ki nga xam ne waxtu yàlla yii bu ko julli waaw bu tabaski ñëwee mu dañ dañu fu nekk mu dugg fa ba mu gàddu bor wax dëgg yàlla kii bokkul ci ñi war a tabaski ndax moom lii jiitu ci moom muy def ay farataam ba noppi balaa ñëw ci sunna mu akkada kon bu fekkente ne moom mu ngi rey boppam ci sunna mu akkada kon na la wóor ne maanaam diine ji yitteelu ko mhm. waaye bakkanam dok dong moo ko ñor mhm. ndax nag fa tabarakallahu li waaji doon wax ne neex dagan mhm. feet jamu yàlla la boo xamee di bakkan daf ca am wàll bu rëy te bëgg nañ nag nit balay rey xar mi sax mu rey bakkanam jiital rey bakkanam d' abord xam ne kat lii kat ibada la boo di taqarrub ila taala subhanahu wa taala ndax lan yanaal wala dimauha walakin yunaalu taqwa at taqwa yàlla mm-hmm. taqwa minkum yàlla nee na ragal gi nekk ci ragal yàlla gi tax ngeen di sakk fii xan ragal yàlla boobu man yàlla moom moomu yitteel ci mbir mi mm-hmm. bu ko defee tabaarakallaahu ñu ngi ñaan yàlla ñu passé ko ci jàmm yàlla def fii ak taysir di jaahi mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah tabaarakallaahu di dellu nag di ndokkeel waa Weer Wii TV ndax ah, tabaarakallaahu fan yi ah, fan yi képp kuy liggéeyal borom bi subhanahu wa ta'ala tabarakallah ti ci jàllale ay message yo xamé ni ngi dafa delu ci manam jangalam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci ca ko ni ja on ni ngi ci ndox ndokkeel ndax tabarakallah li sen xew-xew la ni ngi ñaan yalla nga fekk ko ay at yu bari مرات مرات وافرة وظروف اجتماعية وفقنا الله على زين والسلام عليكم ورحمة الله على محمد السلام عليك يا يا رسول